إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نيب دي رافيل لو سين تي واي سي بيس بي دي لي واخ رك بيس بي موم بيسو مكتي لا سي نون بيسو مكتي لا سي نون تي واتاي تي Euh, te bu weesoo it suñu sang saa su nekk dafay faral di ñu si ñaanal ñu ci yëg ngëneel di ci yëg yokkute ba tax na bu ñëwee rek lépp li nga xamante ne defoon nañ ko année bële passé dañuy fexe gisoo doublé loolu yokk ko ndax ngëneel yi nga xamante ne ñu ngi koy yëg ci bés bi ba tax na waa gan nañ ñëw depuis bët démb waaye ñu leen di dalal di leen yaatal bu baax a baax di leen wax ne suñu bés la waaye ñoom tamit seen bés la ëppale wuñu ci dara waaw siyaare leen laa waaw sant yàlla rek sant yàlla rek waa ñun moom euh, borom bi def na ni euh, xëy na ñun fekkewuñu ba may tar fii si biir yëmbal wante tey euh, sant yàlla bu baax a baax xëy na tar-tar bi sax ñun ay nettali rek lañ ci am mais nag wax dëgg yàlla yëguñu ci benn coono wala benn jafe-jafe yaatal nañ ñu bu baax wax dëgg yàlla mosuñu fee def man si li ma fekkee ba gis ci coow wala ma gis ci jafe-jafe te sang bi moom wax dëgg yàlla eh, nekkin na mag eh, waa yëmbal ah rafet na trop rafet na trop ndax eh, nekkin bu rafet la nekkee ñoom ba tax na bés bu ñëwee ñoom sax dëkkandoo yi dañuy defar ay xéewal gisoo ñiy yaatal seen kër yi woo góor yàlla yi yaatal leen ñuy togg ay xéewal indi ko ci bés bi ndax xam nañ dayoo bés bi léegi ni mu toll rek am ngeen dénk est-ce waa waa gën a góorgóorlu rek xam ne góor moom ca waar wa rek waa góor ca waar wa góor moom ca waar wa te ñun ñëpp yaakaar naa ne ay góor yàlla lañu ñu ñu goreel fa yàlla lañu kon li ñu war rek mooy ñu nekk ci waar bi góor góorlu te xam ne Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru dafa ne woon ay jëf la yu dul jeex gisoo xaw a dee moo koy maye kon nag nañu tegu foofu noonu ndem bëgg nañu bëgg nañu am eh, liñ ci bëgg liñ ci namm bëgg nañ ko am kon nañu nañu fexe rek saa su nekk ñuy jaayante ay jaajëf yu dul jeex. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر